Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak Zahra Iyane Thiam nekk candidate ca mairie bu Sicap Liberté ñoo leen di may seen revue de presse dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyanto yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy def ay révélation yoo xam ne doy na war ba jéggi dayoo ay révélation scandaleuse ci li nga xam ne mooy train express régional journal bi ne na bu weesoo 800 milliards yi nga xam ne moom lañ ko defaree société française yi 95 pour cent société française yi ñoo ko réalisé journal bi nee na bu Sénégal yéenekaay gi na dañu leen a nërmee la la exploitation terre bi maanaam lépp dañu ko jox ñi nga xam ne ñooy waa SETER te loolee nag ab marché public la boo xam ne amul benn yoon boo xam ne dégg ngeen ñu def si ab appel d'offre la te loolee doy na waat ba jéggi dayo journal bi di Sud Quotidien ak L'As bàyyi mbir moomee wax ci élection locale yi nga xam ne jamono ji candidat yeeg coalition yi ñoo ngi ci dernier virage bi yéen a kaay gi de Le Quotidien ñu fekk fa soo am war di ni nee na Barthélémy dafa jël li nga xam ne mooy ab programme am te Abdoulaye Diouf Sarr conseil la ci municipal bu ville bu Ndakaaru te ñetti réunion rekk la ñëw ci juróom-ñaari at yi Ousmane Sonko ci journal bi yàkk na musiba ak mbelengana ki nga xam ne mooy Lat Diop Lat Diop nga xam ne moo jiite LONAS Ousmane Sonko nee na Lat Diop ba ñuy nekk ENAM nulaar la woon ci yéen a kaay gi de Les Échos ñu fekkaat ko fa moom njiitul Pastef nee na Lat Diop ab sàcc la moom ak Aliou Sall ñoo yem waaye nag bu ñu jotee réew mi danañu leen dugal ci kaso bi yéen a kaay gi di mi ko di ñu xëy fekk fa maître Abdoulaye Tine nee na muy tuule bi moom maître daan nay wax ci Mali ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la làmbo la ak ni ñu ko embargo jàpp na ne du stratégie bu xëy ci journal bi di Rewmi Quotidien Sara Iyane Thiam ni ki démb def na ab mitin boo xam ne mitin bu rëy rëy ci liberté 4 ak liberté 6 awa jum mi nga xam ne république des valeurs bu Thierno Alassane Sall la bokkoon bàyyi na Thierno Alassane Sall dem na fekk Sara Iyane Thiam ndax nee na Sara Iyane Thiam jigéen bu man góor la yéen a kaay gi di Walf Fadjri ñu xëy fekk fa Mambay Niang borom Sénégal 2035 ci biir yéen a kaay gi yàkk na musiba ak mbelengaan xam ne ñooy candidat yi nee na nag ñi ngi mel ni ñoom bëgg nekk ay maire ci bi xeex nag li nga xam ne mooy gouvernement bu Sénégal te nag mooy Abdoulaye Diouf Sarr ku mel ni mooma man Mame Mbaye Niang munumaa topp ci ginnaawam dem leen diwaanu Yoff yore na ko lu si juróom-ñaari at amul benn bilan boo xam ne def na ko fa ku mel ni moom du ma topp ci ginnaawam yéen kay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu malien yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ñoom nag ñoo ngi dànkaafoo nee na Mali li mu gën a soxla mooy ku ko jàppale waaye nag soxlawul benn yoon koo xam ne dina ko teg ay daan malien yi nekk Sénégal ñoo doon janoo li nga xam ne mooy ay solution yéen a kaay gi di Dakar Times nee na Ibrahima Boubacar Keïta daan nay génn àdduna Soumaïla Maïga mi nga xam ne ay jamono nekkoon na premier ministre bu Mali jamono jii ma ngi ci diggante du na dee te nañ ko tere mu génn réew ma dem faju ji yéen kaay gi di bés bi nee na Ibrahima Boubacar Keïta mi nga xamante ni génn na àdduna loole nag dina yombal mbir yi maanaam tension bi dinañu ko gën a seddal diggante CEDEAO ak Mali yéen kaay gi di Esat nee na CAN Cameroun bi équipe nationale ji mën nañu sëkk ñi nga xam ne ñoo amee woon coronavirus ñëpp wér nañu yéen a kaay gi